asalaamaaleykum les enfants gars yi seen bii di Mbobos ñoo ngi ñaan kuy gan ci pass bi nga abonné wu partagé yokk ñu doole gars yi joueur bu bees tax Habib Diarra nekk doomu Sénégal ak France nekk booy boo xamante nii man naa ne am na avenir de am na avenir kon Aliou Cissé def lu gaaw woo Habibou Diarra mi parce que boy bu am talent man jàpp naa ne suñ ko si équipe nationale bu Sénégal bi war nañoo mën a apporter mën naa ne Habibou Diarra nag géejawaay la dëkk mën naa ni Guédiawaye la juddoo même ay kayitam Guédiawaye moo ci nekkoon booy bi mën naa ne sénégalais la mais am na ay dossier français kon moom Habibou Diarra mi Sénégal bu deful lu gaaw man nañ koo perte parce que booy bi moom bo ko neexee man na football France parce que yor na nationalité France te football la ci équipe bu France yu ndaw yi kon Habibou bu mi Aliou Cissé na def lu gaaw parce que jàpp naa ni booy bi suñ ko woowee ci équipe bi war nañoo mën a apporter lu baree bari nga xamante ni Strasbourg doon na ko amal ket bërki démb sax moom Habibou Diarra mi marqué ne a bii dugal na bii bu rafet kon booy bi loolu day gën a firndeel ni booy bi talent mi ngi si moom te man jàpp naa ne ëllëg ñi nga xamante ni ñoo war a mën a yor équipe nationalu Sénégal bi bu ko Aliou Cissé woowee si la war a mën a bokk parce que avenir la te xale bu ndaw la amagul yenn at yi mën naa ne vingt et kese la am kon bool bii nii soo ko woowee si équipe nationale bi dina mën a jàppale ñoom Iliman ak ñoom Ismaila ñoom Niancho ñoom Kalidou Koulibaly Gana Gueye ak ñoom Abdou Diallo keneen ki mooy Sékou Mara Sékou Mara moom it ñi ko xam bam bëri na trop parce que booy bi moom it vingt ans kese la am ginnaaw ba nga xamante ni nii nekkoon na ca Bordeaux def fa ay performance yoo am solo ci la ko Southampton jënd mais mam naa ni ba mu demee Southampton ak léegi niveau am dafa gën a yëg kon Sékou Mara moom it Aliou Cissé war na def lu gaaw indi ko si équipe nationale bi moom Sékou Mara nag footballagul France mais football na ci yi football na ci football ci U17 yi mais footballagul si équipe A kon Sénégal mën naa am sens woo Sékou Mara man jàpp naa ne Aliou Cissé bu woowee Sékou Mara war naa mën a ñëw ci équipe nationale bi représenté Sénégal gars yi ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné wu partager Mbow Boss